original ay waay fii xel sa xol. original 100% pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. ETDR Events présente. mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramaren monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck Modou Dia bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo a jàkkaarloo ak doomu Rëbës bi double moteur cey boobu combat soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Tek Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro 2 entrée supporter bi ñu ne 3000 francs amateur ci events te yàlla suñu borom xale yi rek ñoo mën làmb nag ay ja mbokk yi jërë ngeen jëf ñu amati mbégte bu baax a baax ak contentement waaye mbokk yi gën a xam ne tey Fouta production di woote diggante Thiatou Daouda Fall ak ki nga xamante ni mbokk yi mooy Pape Ndoye di rakk ci Lac Rose xam ne tey la samedi premier juin suba la dimanche 2 juin ku nga xam ne le 2 juin ci la ki nga xamante ne mooy Lac Rose war a jàkkaarloog ki nga xamante ne mooy Jackson suba la war a bëre mais Aliou teewul dafa bàyyi léppam ñëw arène ki nga xamante ne mooy raxam gunge ko Aliou yéegal ma ngay wax ak moom ma ngay wax ak moom dama dama ma nga noonu moom Papa Ndoye ma nga ànd ak Gris ma nga noonu ndeysaan ma ngay wax ak Gris 2 da ngay déyante kaay Aliou ndeysaan am na lu ko Gris di wax loo wax Gris 2 loo ko wax tey nan ngeen ñëwee Gris xam nga noonu. defal na yàlla suba ñëw tey. waaw la ñuy def. ma seet tët tët tët tët ci mukaay baa nga noonu Lac Rose nga noonu toog Aliou ma nga taxaw ak père Ibra Mbaye ma nga noonu waxtaanee ko. père ziar naa la père Ibrahima Mbaye. maa ngi lay fay. tey nan ngeen ñëwee. waa sant yàlla rek. ànd ak samay doom samay poulain. am ci ñoom yaakaar. et puis ñu wan ma ko nag. liggéey nañ ci def nañ ci ay jéego di ñaan yàlla ndam ndam na suñu boroom moo ko yor mais am nañ ci yaakaar parce que yàlla kenn du ko jiitu mais am nañ ci yaakaar. mais lu kenn xaaruloon tey euh, mu am muy Lac Rose war suba tey mu ñëw ci stade. xam nga dara dafa fort dara kam la. barki de moo Ndiaye Kaïré bokk na fi ak doomam benn bis lii du dara Sénégal la ñun ñoo bokk lépp am na droit secondaire akam quelque heure bu ko neexee sax mu ñibbi mais na ko gisee xalam dal loolu rek la mais du leneen. mais gars yi na zéro pression lay doxee ñu ne làmb suba bi tegu ko fenn. waaw Lac Rose loolu yàlla moo ko moo ñaale bi mu nekkee xale ba léegi amul stress ci làmb ñu nangul ko ko ne xam ne aji gëm la te ñeme ne fu mu jëm dafa dafa na ne yàlla du ñaar kenn rek la amul leneen looloo ko indi ci làmb wala lan mën a xaar. ndam rek bu sooba yàlla. du mm-hmm. suba ak tey jii tamit. nee naa la yàlla kenn ko jiitu. Mm-hmm. mais nag ñu may tuuti ñu xool ba ci kanam. Mm-hmm. jërëjëf mais ñaari sorties yëpp booy géejawaay ngeen am tey Thiat Daouda Fall suba Jackson. waa géejawaay tamit face ak ñoom. te nag bul juum. bu sekk cob amaat nañu tey ndax mooy bëre caatu da voilà kon loolu Fass ak Guédiawaye la Fass Guédiawaye dañu yokk ci karaw rek mais gaa nee na lamb suba moo gën a métti yëpp a métti ne parce que waaw bis bu ne bis la ñun amuñu bu oyof ak bu dee ñun daan nañu xam nan daan rek daan rek lañu na solo kon daan nañu. ma nga noonu Socé Mané siyaar naa. maa ngi lay siyaar bu raay. tey nan ngeen ñëwee. waaw comme ni ngeen ñëwee rek. Uh-huh. waaw yi yëg yëg ndam suñu yaram. tey ngeen war a am ki nga xamante ne mooy Thiatou Daouda Fall ku ko xam-xam ko ci bëre bi ku ko xam-xam ko ci xeex nan ngeen waajee seen poulain. waaw comme ni ñu ma waxee Thiatou Daouda Fall moom du pression si waa Fass quoi uh-huh. sincèrement mbër la nag jox cër mais mënuñu bëre ba jaaxal lamb la nag. waaw. combat tey ba ak suba bu gën a métti. ñaari combat yi may combat lañ yéenuñu ñaari ñaari combat yi benn la ah. bilaay walaay. mais gaa neen demee moo gën a métti. waaw si ñoom ñu may rek. demee mu demee sax mun naa gën a bu suba bi mun naa gën a yomb sax bu tey laa wax. mun na gën a yomb tey. bu suba incha allah mais teewaay Lac Rose tey ci stade. waaw loolu tax gars ñoo bëgg a yéen affaire lamb rek. lamb mënut a weesu lamb. tey suba lay bëre lu bëriwul loolu dara. gars yi ñoo bi yenewul lamb ji. Uh-huh. waaw yenewul lamb ji. mais adversaire bi mu am Jackson. non loolu adversaire ñun am nañ phase adversaire mënu rëy sa bopp phase. loolu mooy problème bi quoi. waaw rawatina léegi phase bi ñu gisaat. non mënuñu am na adversaire mënuñu jaaxal ak koo doon nag. lan moo def loolu. waaw parce que ñun kooku ñun kooku lamb lañ juddoo kooku lamb lañ dëkk. Uh-huh. mënoo wax lamb te waxoo phase c'est impossible. phase lamb tax ñu naan phase tax ñu naan uh-huh. la demee. mais nan nga gisee seen adversaire tey ba ko gisee caat. gis naa ko préparé lu mu war naa ko mu ngi si forme incha allah liggéey lu mu mais incha koy daan jël bu gaaw incha allah. bu ngeen teg dañ koy daan. jël bu rëy dañ koy daan tey ñoo ko dàq ko mën ñoo ñëw bu doole. yéen ak Jackson. même chose. dañ koy duma daan Jackson dañ duma daan ko wax naa ko képp keroog damay damay daan dimanche damay daan samedi daan dimanche. incha allah. macha allah kontaan naa ci yow. a ngi maa noonu dégg nga li nga xamante ni moom la coach bi wax waaye Lac Rose mi ngi nii toog zéro pression lay doxee ma ngay wax ak supporters yi Aliou mbër noo ñëwee tey. nee na ma jàpp ci jàpp ci nga noonu ma nga noonu. demee tuuti rek ngay poussé tuuti rek. ndeysaan. boobu boobu boobu ndeysaan.